dix ba léegi ñoo ngi taxaw waaye euh, coono moom boo xam ne day jëmale sa askan kanam loolu amul luñ ciy tàyyi amul luñ ciy sonn ndaxte euh, teewaay bi tey dafa am différence ak année yi ñu génn bu ñu xoolee dañ koy commencé ci kaw muy ñaari kilifa yu ànd am yéene ci Sénégal muy le président Macky Sall et le président Idrissa Seck ñu jël loolu wàcce ko ci suuf dans toutes les communes du Sénégal yàlla may ñu tey lu ñu musta xalaat ñu am coalition boo xam ne le président Macky Sall ay nitam ak la président Idrissa Seck ay nitam ànd nañ may fàttali rek lu am solo muy le président waxoon coalition bi buñ ko boolee au niveau national c' est quatre vingt pour cent de l' électorat maanaam téeméer boo gis boo gël juróom-ñetti fukk ci ñun la ñu bokk waaye si tamit ñun dépassé nañ moyenne boobu moom sama sœur Adja Soda Marème wax na ko léegi fii si tamit lu ñuy xaar nekkul score 60 pour cent nekkul score 70 pour cent. nous attendons un score de minimum de 95-98 pour cent waaye nag bu ñu nelaw de il faut pas dormir sur ses <laughs> mbir mi teel a jóg la teel a xëy fajar dem ci rang bi teel a rang parce que ñetti boot la ñuy wote danoo bëgg bu ñu jógee. sànni sama sama jeune frère waaye léegi sama grand frère la parce que mooy sama patron mooy sama maire le maire Saer Mangane buñ ko sànnilee ba pare lem ba mu jekk euh, tànnaat beneen bulletin muy bii di marron beige dox ndànk voteel mon frère le frère et le ministre digne fils du président du SEC le frère Yankoba Diattara ndaxte nag l'espoir et permis pour la première fois ñu am une équipe jeune une équipe si ku l'avenir peut waaye nag bu ñu fàtte ñetteelu wot bi mooy sur le département ñu voté dans les quinze communes waaye nag Thiès Est nga xam ne ñun ñooy quarante deux pour cent de l'électorat de la ville Cité Lamine nous sommes plus de mille électeurs dama ne nañ bàyyi gars yi mille yi rek onze mille yi nañ ko yóbbu ñu voteel le président Siré Dia pour le département waaw il faut ñu génne asaka tuuti dañu génne mille yi asaka onze mille yi ñu wotee ko le frère Saër le ministre Yankoba Diatara et le président Siré bu ko defee sans aucune forme de violence ñuy sensibiliser tous les jeunes ndaxte lii bu sottee dinañ wax beneen Cité Lamy parce que am naa yaakaar monsieur le maire Saër Mangane monsieur le maire monsieur le maire monsieur le ministre du ma leen jox doléance dama leen koy épargner xam naa li ngeen di def vous avez présenté un programme de 10 points Cité Lamy dina ci gis boppam incha allahu parce que nous sommes 20 pour cent de l'électorat de la commune de Thiès Est donc damay yamale fii di remercier tous les responsables sans oublier mon coordonnateur ma sœur d'abord et mon coordonnateur le frère Maodo Malick mbay ndaxte démb dañ doon janoo di jàkkaarloo tey ñu ànd kon na Cité Lamy xam ni lii njëriñ rek ci ne jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen